maa ngi tudd Martin Ndione maay secrétaire administratif bu cellule des cadre de APR de de Thiès ci ci olof nag damay tënk rek du ma du ma ko mën waxaat li li li seen wax yépp ci olof mais dinaa ko tënk maanaam ñoo ngi ñoo ngi nuyu presse locale bi presse presse su Thiès bi di nuyu ñëpp ñi nga xam ne APR saf na leen te ñu nekk fii di nuyu cadres yi fi teew yépp di wax ne dañoo téye occasion tey bi ngir boole suñu baat ci baatu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi wax jëmale ko ci référendum bi nga xam ne moo lëmbee euh, tey coow lu ci dëkk bi moo lëmbee dëkk bi donc te liñ ciy wax dañu koy gaawantoo wax ndaxte dañuy wax pour soutenir position président Macky Sall lu tax ñu koy soutenir parce que li mu ñu li mu ñu tegal ci suñu loxo dafay loo xam ne lii dafay indi dal gën a gën a dalal institution yi au niveau national dafay gën a yaatal démocratie dafay gën a jox gëdd euh, ñëpp ñi nga xam ne dañoo bëgg yëngatu pour que Sénégal jëm kanam donc moo tax mënuñu jàpp te dañuy xarab sax ñi nga xam ne dañuy jàpp rek ne fukki poñ ak ñent yi nga xam ne moom la ñu Macky Sall proposé benn dong lañ ciy téye muy poñ bi nga xam ne dafa jëm ci. Euh, wàññi mandat bi te en réalité sax ñooñu nga xam ne ñu ngi jëkkati seen baat di wax ne dañuy wote non parce que seen euh, doole yëpp dañ seen bët yëpp dañ ko teg ci benn poñ boobu poñ boobu sax daanaka intéressé wu leen li leen intéressé kay mooy mandat bi nga xam ne ci lañu nekk ndaxte xelu nit nit njaay xel donc mënul jàpp ne nit di nga wax ne d'accord naa ci man d'accord naa ci mandat bi ñuy wàññi ngay voté non parce que voté non moom mooy li nga xam ne moo fi nekk te mu nekk sept ans ci constitution bi moom ngay wéyal nga wax ne dama bëgg ñu wàññi mandat bi ba pare nga ne damay voté non kon loolu kon int kii wàññi mandat bi intéressé wu la li leen intéressé kay moom mooy mandat kii Macky Sall jógee fi mooy haute toi que je m'y te dafa mel ni euh, kii Macky Sall da a jël ci seen piège ñoom parce que li ñu bëggoon moom mooy institution yi nga xam ne moom moom la Sénégal Macky waatoon ne moom laay respecté moom la conseil constitutionnel di sàmm moom ñu bëgg président weddi conseil constitutionnel weddi yoon bi nga xam ne daf ko waatal waatoon ci kanamu askan yëpp te askan ànd ci ne président na weddi loolu donc loolu moom moo tekki ne bu subaa président bu ñëwee fii donc lu ko neex def bu bu même bu institution bu ñu tegee ay institution bu ko neexee mu jalgati ko parce que rek dafay prétexte ne peuple bi moo ko bëgg Macky Sall nag dafa ne loolu duma ko def tey duma ko def ëllëg parce que ñëpp ñi nga xam ne ñoo ŋànkoon Sénégal ñoo woon Sénégal ba mu amee indépendance ba tey jii amul kenn koo xam ni kii ba ñu taxawalee conseil constitutionnel taxaw na ne damay weddi li conseil constitutionnel wax donc looloo tax ñun ñi nga xam ne ñun ñooy cadre APR Thiès dañoo taxaw ci jàppale président Macky Sall taxaw ci gunge ko ci lii mu lii mu mëbët taxaw également ci wax wii parce que li mu ñu euh, li mu ñu teg suñ li mu ñu tegal suñu loxo ngëneel la pour Sénégal ngëneel la pour euh, ñëpp. ngëneel la pour constitution Sénégal également donc ñoo ngi leen di gërëm di leen sant